الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مبقي مبقي مي دافا واخني امنا ني بري بري ньо خامني دانيي ووتي وو اي نغنيل يو خامني يو ماغلا تي بولين واخين لين نغنيل يويو فان nga tekne lu sax la ñeel la wala lu sax la ñeel kakoy wote wo dañuy wax ne dalika fadlullahi yutihi man yasha ngëneelal yàlla daal yàlla moo koy jox ku ko soob ñu ne ko waaw jox ñu lenn ci ay misaal ci ngëneel yooyu ak jagle yooyu nga xam ne am na ñu koy woote woo mu ne am na ñoo xam ne dañ naan la yàlla jox na ma ak salaatu ak salaatu gu may julli ci yonent bi goo xam ne képp ku ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon am na ay jagle yu rëy comme nañ ko waxee woon ci salaatu gu ñu fi tuddoon cay jamono ca gannaaw ne am nañu wax ne salaatu googu boo ko jàngee benn yoon dafay wecc dafay tolloog nga jàng alquran ba mu jeex kaamilu alquran bi nga jàng ko ba mu jeex waxul benn waxul ñaare waxul téeméer waaye nga jàng juróom benn junni kaamile alquran salaatu googu mooy wecci yiwu nga jàng kaamilu alxuraan ba mu jeex juróom benn junni yoon nga yëg ne kon googu salaatu benn ba moom kon nga jàng kaamilu alxuraan benn yoon féetewu ko fenn waaye mi ngi wecci juróom benn junni kaamili alxuraan lii bu fekkente ne nit dafa wax ne yàllaa ko ko jox ci jagle ak misaal yi nga xamante ne moo ci topp danañ ci ñëw bu boobaa deesu ko nangu du caagénte ne man maa koy bañ a nangu walla keneen ku mën a doon waaye sharia ko dul nangu lu tax li tax sharia du ko nangu mooy benn ana lan mooy firndeel ni salaatu gii ku ko jàng benn yoon mu wecc juróom-benn junniy kaamila alxuraan bal yamuñu foofa ñu ne dana weccit gépp sabbal yàlla gu ñu mas a sabbal yàlla ci àdduna nga xam ne sàbbaalug yonent yi sax da ciy dugg man ngaa wax ne ak malaak goog malaaka yi sax kay euh, ak yeneen ak yeneen ci ay ngëneel yuñ koy wutal lan mooy firndeel loolu ci alxuraan ak sunna loola laaj nañ ko fi ba mu booy ay nopp waaye ba léegi kenn mënu ko wutal firnde bu fekkente ne da nga ni loolu ngeeneelal yàlla la moo koy jox ku ko soob nga ni ngeeneel loolu ndax saaba yi yaroo woon ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañ ko déet bu dee da nga ni waaw amoon nañ ko kay amoon nañ kay salaatu goo xam ne buñ ko jàngee benn yoon mu wecc juróom-benn junni kaamil alquran nga ni indi leen firndeel Ken kenn du la ko indil bal ñemewu ñoo wax ne saaba yi amoon nañ loolu waaw salaatu gu toll nii ci aw yiw nga koy jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu am ngëneel lu toll nii te saaba yi yaroo woon ci keppaaru yonant bi muy àddu ñuy lu ñoom amuñu woon lu mel noonu benn waaye ñëw ne dañ ma koo jagleel yàllaa ma ko jagleel wala yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare nga nangu koo gëm ci waxtu woo xam ne yonant bi sallallahu alayhi sallam ba mu nekkeeg saaba yi laata boroomam di jël ruuxam muy wuy ji boroomam waxoon na ni lépp lu yiw wu leen di jegeele yàlla xamal naa leen ko xanaa wii bokk ci woon kon yonant bi ba muy wax loola am na lu mu nëbboon saaba yi des mu des jàngalu leen ko mu ne ah lii kat moom dama ko ak mbar feggu la goo xam ne dama koy jagleel koo xam ne day ñëw jëmmi jamono yéen saaba yi bokku leen ci wii wu rëy loola waxuma la euh, nga am firnde lu tukkee ci alxuraan ak sunna waaye boo dee boroomum xel waroo koo nangu